maanaam solu Viviane la modèle Viviane mannequin Viviane la diva wax dëgg robam bu roos romb na Titi romb na Adiza ñooñu rek fi mën a tëggalal tey man Mister Shake dama ñëw def benn vidéo ci tere dundu bu Viviane tere dundu bu Viviane numéro uno une, chanson, très belle, vidéo bu Viviane encore une fois c'est la reine incontestable et incontestée du mbala et de la musique sénégalaise très dund Vous bu neex la boo xam encore Viviane elle est là elle est toujours présente she's here to stay Madame Viviane fas yéenewul viviane musique bi ak à fas yéenewul joxe lenge waaw ndax man woy bi woy bi dafa neex trop man maa ngi ko mës maa ngi ko déggee ci xale yu ndaw yi di ci def challenge gis nga xale yu ndaw yi. génération TikTok ñi ma tuddee génération yaa ko tere neex génération TikTok xale yi xale 18 ans yi xale 20 ans yi ba 25 ans laa seetaan benn xale mu mu koy fecc si TikTok bi ndeysaan xaw ma Snapchat def ci version ah, Chipmunk mais woy bi neex ma ne mais. mais baat bi woy bi woy Viviane la munema wa ma Viviane la mané mais c'est pas possible c'est pas possible woy bi neex naa woy bi neex na kon nag ba ma clip bi ñu ci encore Viviane ci mëneelam manam solo, Viviane la modèle Viviane mannequin Viviane la diva wax dëgg robam bu rose bi robam bu rouge bi ñu gis ko ah mu perruque bu cheveux blanc noir mais Viviane marre d'Italie, elle est toujours belle. Éternellement jeune, perpétuellement svelte. Elle refuse de grossir, elle refuse de vieillir. Mais man waxuma loolu yëpp mais way bi ci bopam dafa neex dafa am sens. Viviane dafay représenter Sénégal ba Afrique Motax vidéo bi peut-être am 877 000 vues en 4 jours en 4 jours loolu gars yi loolu lu la xamna naa ne Sénégal man suis ngi New York bu la faté ba ma Sénégal dama xool classement bi YouTube kan mooy premier Wally Seck mooy yàgg nekk premier foofu ndeysaan battre record yu bëri ay taxi loob ak yu ma xamul en une semaine moo am plus de un million mais Viviane en une semaine dina am un million gis nañu ne vidéo bi mu ngi ci huit cent soixante dix sept mille vues en quatre jours moo fay premier nekkuma Sénégal maa ngi New York xanaa peut-être ku koy challenger mooy sekkuñu bàyyantee bu Jahman Express mais xam naa ne Viviane romb na ko Viviane mooy number one in Sénégal man loolu lu ma dañ koy féliciter mais xolal chorégraphie bi avec le meilleur danseur sénégalais de tous les temps Pape Moussa Sonko and ak xalé bu rafet ben sénégalais bu rafet ñu fecc fi fecc rafet mais fashion Viviane fashion Pape Moussa fashion waaw sol tuxedo sol yëre olof bleu Dessad, nga gis len Pape Moussa aussi instant bu mu solee déguisement bi sol masque bi mais c'était c'était c'était magique vraiment Viviane fan le tourné show bi mi ko tourné ci ben musée lay ndural musée de voiture Ford des années 30 des années 20 auto yooyu auto yooyu américains mom lañu la 1930 mais auto yooyu voiture de collection là, milliardaire, yi dañ koy am diko diko diko di diko xol mais gis ngeen Viviane mi koy dawal loolu symbole la symbole c'est un c'est un symbole pour wane ne Viviane il elle est dans le passé mais elle est aussi dans le présent c'est la classe c'est le c'est le luxe wax dëgg wax dëgg man kontaan naa mais nag Viviane erreur bi mu def mooy album bii daf ko waroon teel a génne bàyyi leen di am lu baax di ko denc di ko denc di ko denc corona bay ngeen nii ñëw léegi yàq yàq lépp da ngeen ko waroon da nga ko waroon teel a génne waaw ndax fu mu ne corona bi dafa dafa bloqué lépp waaw ndax Viviane lii daf ci waroon def ay tournée mais nag c'est bien il n'est jamais trop tard bien faire mais corona bi dama bëgg ngeen xam ne xaajagul bay jeex te musiciens gën a sonn

Yes.